te ñu xam yan zone ak quartier la concerné procureur lànk du ci wax moom procureur Amady Diouf weer ci ginnaaw OFNAC dafa bind rapport gannaaw ay investigation yi ñu def ci dossier 94 milliards xaalisu Sénégal bi Mamour Diallo ak Tayrou Sar lu bël koppar goo xam ni mënoon naa régler lu bare bare ci njang bi faj mi ak ñàkk karang bi mais OFNAC yamul rekk ci bind rapport dafa ni dossier bi jébbal nañ ko procureur ngir mu topp ñaari samba boy yi ci yoon moom Amady Diouf mi ngeen dégg bërki démb lu ëpp weer jébbal nañ ko dossier d'enquête boo xam ni lépp noppi na jàpp tëj kese moo ci des ngir ñu récupérer suñuy 94 milliards mu lem dossier bi ba mu jekk dugal ko ci tiroiram ne sama yoo new ci li tax nag ñu tàmbalee fii mooy mu leeragum déjà ci bopp ñëpp ne procureur Amadou Diouf mi kat sam karangé ak alalu sénégalais yi ko intéressé du priorité ko la clairement ni dafa ñew ngir de liggéey bi c'est un procureur partisan dafa woné pétem un dara di xew kon ki bu rek ñun en tout cas doy di wuñu ba duñu posé waay question ak chamber lu joxe nak ay information dan ci ñëw benn par benn amna itam luñ ci tire comme conclusion suñu jangatu bop té sénégalais bu ci nek war ci préparer wu manam fa la Sénégal na jëm ci at ak juroom benn yi di d'abord il faut que ñu contextualiser mbiri manam ci ban période le procureur Hamady Diouf défé sorti li sabab génnam moy gannaaw mobilisation bu coalition Yewwi Askan Wi organisé wol le 8 juin bi ñu génn ànd ceeg wàllu Sénégal même coalition bi di wajalat benen mobilisation le 17 juin di vendredi bi diggante bi la Amady Diouf génn. xam ngeen ko dafa am lu guléet ci réew mi lo xam xeyna mo su fi am ma bu fi amee itam bariwul euh, moy euh, japp bi nga xam force de défense et de sécurité moy ñi nga xamné comme ni ngeen ko xamé ñom ñoy top suñu karangé diko ko wattu di veiller sur ça ñom ñoko ko ñoo jàpp ku ñu Ousmane Kabiline Diata ki nga xamné d'accord na bañu ko nangul ko que élément MFDC la bi mu ñëwee Dakar euh dafa yalla dafa def euh avant muy ñëw suñ force de défense de sécurité et surtout les les services de renseignement dañ ko identifier clairement. dañ ko repérer ci ak ci bi préparation pour ñu Dakar manifestation bu fi am tam ñu jël di géolocaliser di ko géolocaliser jaar jaar brigade de recherche ko après jox ko section de recherche de la gendarmerie information bi nous ñun buñu pas yalla yàlla bettuñu ku suivre sortie ak intervention wu nguur gi après événement yu mars 2021 yi il fallait s'attendre à ce que ñu bëgg lier manifestations manifestation ak walum rébellion bu ngeen amee tuuti fàttaliku Madiambal Diagne moo ko njëkk wax daw ci émission né ay rebelle ñoo jóge woon Casamance ci mois de mars ñëw tal Dakar manam buñ ko déggé université ville ba ci banlieue bi xali yi yépp génnoon di manifester ay rebel lañ xam nga lii bu dul woon yenn kàddu ñu bañ sos gënu koo rëy bu doon ñi génnoon ñëpp ay rebel yu bokk MFDC lañ yoray ay ngànnaay ni kon événement yu mars yi di nga dégg policier wala gendarme bu ñu ràyyi ay ndaw lañu gis ñu gàddu ay xeer ñoo xam dañuy dem sax bu waray policier dominer leen mënoon def nak sudul noonu taxaw di saafoonteeg ñom ne suñuy frère ngeen. donc daw la campagne de manipulation bi Tambali, ci ma Madiambal Diagne mi nga xamni mi ngi en lien direct avec le pouvoir parce que bu wajal dara kenn ci suq yi lañu ñuy njëkk pour mu sonde notre réaction population bi Madiambal Diagne ci mercenaires yoyu la bokk. ay kër ak i terrain lañ ko corrompre pour muy dafay propagande mensongère depuis 2012.

ne japp nañu rebel bu ñu Pascal Émile Ndéki ñu ne mi ngi àndoon nag wër ak doomi adam ak benn doon dem ci manifestation bu 8 juin bi japp leen tur wi ñu ne mi ngi tudd Pascal Émile Ndéki ñun ñu waxoon fi né fausse information la pour titre génie bañu bañ génn li prouvé seen cuune ci buñu véhiculer xibaar yu ñu mel pour nax sénégalais yi moy semaine bi ñu génn dañ né ko tudd Pascal Émile Ndéki la ñu jàpp ak fanweri doomi adam ak ben tay seen procureur bi genn ne ku tuddu Ousmane Kabilil Diatta lañu japp ñi mu andalon sax ba tay waxlu ñaata lañ parce que amul dañ ci ñew mu ne dañu daw. lañ xam nak si ngo si moy biñ ñu ko jàppee ñëpp dajé Dakar dañu tass ci bir Dakar ak ci bir Sénégal principalement à Dakar. donc ci lu matul ñaari semaine nguur gi fossé nañ seen communication ak ñaari version yu bokul ba ci procureur Hamidou Diouf ci déclaration am discours bi mu tenir en français ak discours bi mu tenir en wolof ci lan mo indi won ki ñuy woy Ousmane Kabiline Diatta ci région bu Dakar ñaari discours yu bokkul la nañu déglu version française bi ñëw ci tekki bi. Donc invité à s'expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, il a été très évolutif dans ses explications, évoquant d'abord le besoin d'acheter un mouton qu'il a conduit d'abord à Kaolack puis à Dakar en passant par Mou, Mais paradoxalement, il aurait aussi soutenu, en même temps qu'il a tenu ses discours, il aurait soutenu auprès de son logeur qu'il était principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères. Euh, ce qui nous a semblé être des déclarations très évolutives pour ne pas dire contradictoires. l'histoire. Ousmane Dakar wax ni jënd xar fi mu procureur moy wax né lolu dal day kàddu yu méngoowul ci raisonnement procureur kenn amul droit jënd xar jëndaa lay dàll xam nga fi batay kenn waxu fi waxi manifestation parce que la réalité dëgg bi moy waa ji xamul woon ni sax mobilisation dafa amoon Dakar ba su mercredi 8 juin bi ñu genn xamul won li xew Amady Diouf dal li ñew nak ci version wolof bi au lieu que mu wax li waa témoigner na jënd xar ak dàll nee na moo ko indi woon Dakar d'après kàddoom mais dafa ñëw ci parti wolof bi teggi li ko waa ji wax ni moo ko indi dakaar def une déclaration affirmative ay supposition njort ni ñoom gannaaw seen caytu li ñu jàpp mooy waa ji ak i gaayam dañoo ñëwoon ngir participer ci mobilisation bi 8 juin bi ñu passé. dañ ko repéré si Sindia moom ak ñeneen. ci bi seen biiri jëf seen biiri waxtaan ak seen biiri préparation pour ñu ñëw Dakar fekkee manifestation bu fi waroon am ñoom tam ñu jël seen motukaay di leen géolocaliser di ko géolocaliser ba mu jaar Kaolack jaar euh, Mbour egsi Dakar ba yàlla def wa brigade de recherche jàpp ko après jox ko waa section de recherche de la gendarmerie. donc lii démarche nit ku malhonnête la ku jubadi maanaam booy wax en français wax li nekk ci dossier bi dong yam ci waaye boo ñëwee ci parti wolof fi nga xam ne fa ngay waxee ak li ëpp ci sénégalais nga xam ne nga jël déclaration ki nga wax ni nga jàpp tegee na le wax say waxi lañ la sant nga wax lu ci dossier bi. lii Le procureur de la république Amady Diouf def ci sortie bu c'est de la manipulation nit ku dangereux mi ngi nii kii tey lañ mo gën sering pire Serigne Bassirou gay ndax du wax ko du dëgg té bi mi intervenir waxul ci yan anam lañu jappé Ousmane diata ak fan lañ ko jappé ndax dafa pare won ak benn groupe ngir dem ci mobilisation bi 8 juin bi passé ndax dañu yoron ay ngannaay pour yee fitna du ci wax parce que lolé li pamul waji ñi ko jappé ci ci bërebu Dakar dem dik mu doon ngi benn xaritam yag nañ ko top nak ndax actuellement bépp doomi Casamance li ñuy wax ni dafa graw mais sénégalais yi faaw ñu leen di wax dëgg jamono jii képp ku Casamance nguur gi am na fu lay étiqueté dëkkal la fa muy loo stigmatisation la kiñ ne moom la ñu jàpp mës naa bokk MFDCM dit ñun duñu sukkandiku ci information nguuru Macky Sall suñu gëstu bopp def ba ci lu yaakaar naa ni du si imaam ba dara ndaw ku mu yeewu rek dara dootu la yee niñ ko monté woon toute pièce ku ko dégg sa loxo dar gémmiñ dëkk lépp ay sos la woon pour recevoir ay financement jëm ci wàllum terrorisme li wérte wóoru mooy kiñ jàpp jouru manifestation bu 8 juin mi ngi demoon déggu nge benn xaritam waajul manifestation àndul ak benn groupe doomi aadama loolu seen fausse information bi procureur bi joxe d'ailleurs xel nanguwul ñu ne dafa ànd ak mbooloo ñu ne yàgg nañu leen topp si Sindian Kaolack Mbour ba Dakar trajet boobu yëpp ñu leen di topp mais finalement mu jënteel ba moom kese la ñu jàpp ñeneen ñi fan la ñu jaar ba rëcc ba tasaaroo ci ndakaar gu ndaw gi maanaam ñii seeni dof la ñu jàppee lay wu jub sax mënuñ ko histoire Ousmane Diatta dafa am groupe bu mu àndaloon pour taal réew mi ay nara yu tooy xepp la mosul am te duñ ko prouver ni ci ay message wala appel téléphonique li coups bu ñu tëggoon la il fallait que ñu am ku ñu japp ku bàyyi ko kole ko motif pour ne manifestation yi fitna moko taxone taxoon jóg su ko defee ku nekk tiit tok sa kër mo taxone la veille du mercredi 8 juin biñ ne ëllëg la les trois charognards de la république Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niass ak Idrissa Seck Macky Sall yabal len ñu génn di wax waxi fitna té dara xewul parce que amna luñu lu ñu doon préparel lii dëgg ci dossier bi moy cible bi du sax kuñ jàpp waa ji ñu jàpp taxu leena jog mbir mi c'est politique et de la pure manipulation la preuve ci déclaration procureur dafa muju nak genn ci dossier bi waxatu ci à la fin dafa junj perspective manam luy top ci mbir yi deug deug nak la laaj. enquête bi tam war na wax toute personne bon comme ni A ni Z avec rebelle nous poursuivre le traduire le devant les juridictions pour nga répandre ses actes parce que pour nous de notre point de vue il peut pas y avoir ni d'intouchable muy ni A ni Z de façon directe ou de façon directe notre devoir est de ko

à cause de ben conflit bo xamni légui théâtre mo ci gëna bari té malheureusement askan wi ñoy nek les victimes lolu ñoru leen xam nañu fan lañu wara jaar pour japp chef rebelle yi dëggantaan mais arrangé wu len système bobu nonu defoon nañ ci vidéo mais procureur dafa ni ñi nek Dakar ñan ñoy ñi nek Dakar ba nopi ne amul intouchable amul dara dégluwaat len bu baax a baax. Parce que pour nous, de notre point de vue, il ne peut pas y avoir ni d'intouchable, ni A, ni Z. De façon directe ou de façon directe, notre devoir, c'est de faire une faire enquête nous le tribunal comme il se doit dans un état démocratique. Il y a un bu politicien intouchable au Sénégal pour le gouvernement bi Ousmane Sonko la moo bu ëllëg mu am benn rebelle wala benn ancien rebelle bu bëgg xaalis neex a corrompre bu nangu ñu neexal ko wutal ko après passeport mu exilé wu génn senegal pour mu d'accord témoigner ni Ousmane Sonko MFDC la bokk nguuru Macky Sall capable nañu loolu jàpp rebelle waxloo ko ñoom la ñu namm pour monter un dossier MFDC bu liiw ak Ousmane Sonko wa ilaa mobilisation am ñu simuler benn attaque nguur gi ci boppam. jël ay mercenaires pour ñu rey ay policiers pare ni manifestant rebelle yi ñu leen doon wax ñoo ko def jàppandoo booleb leader politique yi ko organisé woon nguuru Macky Sall capable nañu lii. waxoon nañ ko suñu page li Macky Sall namm Sénégal muy yootu troisième mandat ci fitna rek la ko mën a amee. benn mooy installer une situation de peur tiital ñëpp ne danger mi ngi suñu réew bu boobaa dafay am possibilité décréter état d'urgence kenn du génn. manifestation du am ñu tënk ñep fi la ñu Macky Sall bëgg jëmé motax tax ñu doon wax ni résistance bi faaw ñu organiser ko pour que fu manifestation di amé mu am une équipe yuy veille ci bëpp bop koñ pour dara baña rax mbolo mi ndax ci infiltration la ñu mën ay bal ba kalaate lay bomb jiñ ko opposition bi ñaxtu wala jeunes yi beneen bi moy mbiri baña yam rek ci ndakaaru ak place de la nation ñun li mosuñ ci na gaa yi taxawal un mouvement bo xamné da fay dépasser cadre politique créer ay cellules de résistance fépp ci Sénégal pour taxaw temm jàmmaarlu nguuru Macky Sall ndax ndakaaru dong da yomb a gérer mais bu mbir mi tasaaroowee Macky mo xam force yu bu meuna déployer da fay dellu ginaaw manifestation yi da fa war tass tas waruñu ko rek yemale ci benn bërëb li moy la solution kon tax selu bi tay lolu won ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf